saamaan tooñ na moom hey hey saamaan saamaan fi guy gi di yegg sori na saamaan fi guy gi di yegg sori na sori na sori na guy gi ngi seere booy sigg di am problème saamaan boo siggee rek caafu mer maa ne xam waxoon naa la ko fam ko moo sori guy gi daan na saamaan boo sigee rek caaf mer ba ne xam waxoon naa la ko fam ko yegg moo sori